ci kër Cheikh Mouhamadul Mourtada amal jataay boo xam ne mooy doon jataayu tàggatoo bi ak sëriñ Mamour Mbacke ñu yëkkati ay kàddu waaye itam sëriñ bi yëkkatiwaat ay kàddu jëmale leen ko rafet lu seen liggéey gën leen ko seereel waaye itam gën leen ñaax gën leen soññ ndax euh, ni ñu koy waxee rek xëy na màggalu Tuubaa gi dafay étape bu am solo nga xam ne ci la ñuy jébbal seen liggéey waaye ci lañuy ñuy war a takkuwaat nag ngir gën a dolli seen taxawaay ci tool bi. bi annani qadimu sil qadima jotaayam sëñ tuubaa rek a fi nekk loolu ak mbégte la bu kenn ku nekk ci xolam ndax jëmmi sëñ Touba rek a tax na ñëw fii lii nag dañuy fàttaliku li sëñ tuubaa doon dox démb dañu koy fàttaliku dañuy fàttali sos yoonu murit ba tey lii am nii ndax lu day nii ñu ko fii ci kër sëñ Touba gii loolu kenn ku ne war naa xam ni liggéeyam sëñ Touba noonu rek la mën a mel ndax bu ñu seedee sëñ Touba ba mu ba mu ba mu jóg di di liggéey sëñ Touba ñu dem ba nun ay taalibe ñu jógee fii. ci réew mi dem ci ci réew mu mag ma di fa liggéey liggéey bu dee nii ba ñëw fi ci kanam sëñ Touba loolu kenn ku ne xam ne sëñ Touba ko liggéey kon nag loolu noonu ci sant yàlla ak yonte beeg sëñ Touba di am mbégte mu rëy nag ci teewaay bi ñu teewaay nga xam ne jëmmi sëñ Touba rek a tax ñu teew ko ndax sëñ Maam Mor mii tey de kenn ku ne xam na ni li ko tax a jóg muy liggéey sëñ Touba ndax waa ji moo dama ko doon doxee moonu tax tey ji nu jóge étage ñëw fii te li Seex Maam Mor Talla moo ko waral ndax moo jóg liggéey lislaam liggéey boo xam ni da koo ci àdduna bépp ba mu ñëw armée gi nga xamante ne bii kenn ku ne xam na ni mooy réew mi mag mu ñëw fa sam fa sam boo xam ne bii kenn du jox ba àddunay tukki ba tey jii lan fa ba lan fa bàyyi woon bu doon benn man ni junni la kon nag loolu liggéeyam sëñ Tuubaa la kon nag loolu nañ ci sant yàlla te góorgóorlu ci te ñaana sëñ Mourtala sëñ Maam Mor nii taxawaayam bi yàgg ngir jëmmi yàlla ak yoon tamit sëñ Tuubaa ndax kat li fi sëñ Mourtala woon kenn ku ne xam ne da koo yokk ci saayir ak ci baatin delluwu ci ginnaaw yëg gi ak jàpp gi ak li lislaam ñor ko kenn ku ne gis na ko tey ji université bi ñu fa demee nu ñëpp suñu yaram daw na loolu mooy liggéey seen Tuubaa kon lépp li ci waa ji def na nga yokkuwaat mel mosoo ci def dara ndax lii rek moo ne jëriñ tey ëllëg ëllëg mi kaa nag nañu xam ni liggéey boo xam liggéey seen Tuubaa la na kenn ku ne xam sa jëm bopp ni liggéey boobu dañ caa war a taxaw ndax lu ko sëñ Murtala santaay def ko ba sëñ Murtala bu ma sant sëñ Tuubaa tax loolu waral tey ji ñu ñëw fii di ay taalibe nag doon benn suñu àll suñu lépp sunu sunu doole sunu xalaat lépp ñu toog fii di ko xaar yenn ba ngoon ngir jëmmam jooje loolu nag ñun ñëpp nañ cee yàlla ndax ku sëñ Tuubaa dimbale tax nu mën a am loolu ndax réew mi jafe-jafe ba xew yi bari na itte yi bari na waaye kenn ku ne jàpp nga sa xol lool ba ñëw fi tey bu doon bu doon ba suba bu sëñ bi ñëwul bu kenn dem kenn du dem kon na loolu lañ ci sax nga xam ne liggéey bii noo suñu njëriñ teele suñu njëriñ ëllëg ndax sëñ Tuubaa moo tànn ci ay taalibeem kenn ku ne la ko war a liggéeyal boo ak boo xamut moo nu yóbbu ci Amérique moo tax ñuy liggéeyal fu ndax sëñ Tuubaa sa àdduna bépp kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di xam ne mboolem koo xamante bokk nga ci liggéey sëñ Tuubaa bi ci Amérique teew nga fii day yi da da yeen bu rafet ànd nañ su lépp teg ko ci loxo sëñ Mame ñaan nag ñu ñëpp kenn ku ci ne ñuy ndigalam di déglu ay ay ay ay tereem fii nu toog di wax it ku ne kàddu fii lay yem bu mu demee ci sëñ bi dañu fab àddi teg ko ci loxoom mu moom la wax si wante sëñ boobu nu taatan ca jëloon ci àdduna ak àllaaxira ñu ngi sant gërëm ñëpp di gërëm di sant nag suñu mag ñi nga xamante ni bii muy sëñ Mbàkke ak sëñ Gumba ñi xam mën ay liggéey bi ñoo ko fondation ba mu toll fii tey jii ndax moom la loolu la mag doon jariñ mag day day xàll xàll woo xam ni bu jógee ba dinañ tukki nit ñi di ko daw loolu nag leen sant leen gërëm te xam ne taxawaay boobu tey tey la gën a yokk ndaw yi nga xam ne ñoon ngeen ko bàyyi tey mën nañu liggéey bu doon benn la dem nañ ci fukk ndax li fa daje ren ak ci xaalis am te loolu xale yi ñoo ko def sëñ Imaam Daabu mii kenn ku ne taxawaay bu mu taxaw gis nga ko nooru daan yi gi nga xam ne dañ ko daan daje sax léegi dafa dem ba def ci ay waxtaan di ca soññee def ci bisab sëñ Tuubaa mu yokk ñëpp teg seen bëgg Modou Gueye mi nga xam mooy sopp ndig moo mooy takk ndig ànd ak gone bis bu ne duñu taxaw kon sëñ imam ñu ngi sëñ sëñ Momar Matala ñu ngi lay seeran taalibi yii amuñu lu sëñ Tuubaa yaakaar nañu sëñ Tuubaa liggéey sëñ Tuubaa rekk la ñor na nga leen ñaanal ci barkeb sëñ Mursalaa kenn ku ne li ñu boo def ñun ñii boo liggéey mën koo def ngir jëmmi sëñ Tuubaa ndax jaayante def sëñ Tuubaa tudd dellu ginnaaw nag ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa ma qaabal nee na li mu bëgg a wax dafa bëggoon a nekk ba ci kër kilifaam ga di Cheikh di Makhtar yàlla na fi yàgg te wér waaye nag nee na mobilisation bi ak jëf ju rëy ji dana leen sant bala ñoo dem foofa kon ñu àndandoo déglu. cant gi sax euh, na cant gi day xanaa santaat rek lay doon. te xëy na am solo. nee na te day xëy na du ko am solo waaye nag luy am solo ci ñun la. ndax nee na ki ñuy defal muy sëriñ Touba nee na moo ñuy liggéeyloo nee na ku ñuy liggéeyloo nag dafa bokkul ak koo xam ne da ngaa bëgg a liggéey nee na ku ñuy liggéey loo te ngay liggéey nee na kooku dey xam nga ne am nga ak cant nee na gannaaw sëriñ Touba moo ñuy liggéeyloo nee na ak cantam day dara waru cee tege te nee na sant nañu nee na kon de loolu doy na sëkk nee na li ci des rek xanaa ñaanal ñu ndax mën na ne wàcc nañu ndax suñu doole suñu alal suñu bakkan suñu lépp jox nañ ko ko nee na loolu day kenn mënu koo weesu ngeen ko defalit waaye moom miñ ko defalit noonu la ko defale woon boromam nee na noonu la ko defale woon boromam ba am mu am ba lii mu am tey kon nag la am nee na kon nag lam am dugg ngeen ca biir nee na dugg nañ ca biir kon loolu doy na sëkk nee na kon loolu doy na sëkk kon dem sëriñ bi kon nañu àndandoo dem ca sëriñ ba mu seedeel leen liggéey bi mu seedeel ñu liggéey ba fa moom ñaanal leen mu ñaanal ñu loolu rek ci doon sànni nee na moom loolu rek la ci doon sànni nee na moom ci wàllu boppam nag mi ngi ñuy sant bu cee boole. ndax dañ ko cee boole. waaye yéenay liggéey. waaye ñun kat ñooy liggéey. kii liggéey nag. nee na kii liggéey nag. boole la ci liggéey ba. boole la ci liggéey ba. mel ni daf laa def ca kanam. mel ni daf laa teg sax ca kanam. feeñal la ca. feeñal la ca. te doonoo ca dara. te doonoo ca dara. kooku moom. nee na kooku day moom. Eh, yàlla rek am yàlla rek moo am nag payug ñooñu muy yéen ñii. ak sëriñ Touba mi nga xam ne moo nekk ci diggante bi. kon yàlla ñu fay. lu kawe njortu yi. ci àddina ak fa ñu jëm muy àllaaxira jërë jëf kon ñoo ko déggandoo kon ni ñu leen ko waxee bi ñu dajee ba teew ci Cheikh Sidil Muxtaar euh, ni ñu defee benn say euh, boole seeni mbir ni lañ boole seen kàddu euh, jébbal ko seen jëwriñ muy sëriñ Mamor Mbàkke mu jottali kàddu yooyu ci kanamu Cheikh Sidi Muxtaar waaye itam ginnaaw sëriñ bi foofee lañ ko seddee ak mboolem bitim réew ak la fay ne kon moo tax bi ñu teewee ci kanamu sëriñ bi itam mu am seere yoo xam ne defal na leen ko waaye yëkkati seenub liggéey ginnaaw bu ñu ko tegee ci loxoom jébbal ko Cheikh Sidi Muxtaar kon ñu teewlu euh, mbir moomu ak sëriñ Maam Mor كتابتي قبل لدى البور mbooloo mi mbooloo mi mooy daayira nga xam ne yépp ñoo nekk ci Amérique ñoo ñëw di ziar ànd ak ñun ni nga nu ko digale woon muy mboolem ña nga xam ne yeneen ay daayira lañu te nekk ca biir Amérique ñépp di taalibey sëñ Touba te ngay sëñ Touba. ñu ñëw ni ma ko waxee mooy ndigal li nga joxe woon ne ñu ànd ak ñoom seede loolu it ku ne xam ne ne la nga ci jublu mooy rek xam ne fii mooy joyukaay bi te ku ne bu jaaree fu ne mën naa am ñàkk daje ak ànd du ngeen xam ne loolu rek ko moo ko moo mooy mooy mooy liggéeyam ñu ñëw nag jëpp ñëw euh, di la ñaanal yàlla may la wér yàlla may la fan wu gudd barke Sëñ Tuubaa ñi ngi nii nag ñun tam seede rek lañ ci am ndax ñooy liggéey ñooy jëf buñ jëfee ba noppi it mel ne dañ noo feeñal ci kanam dara lañ ca wante defuñu ci dara ni ñu koy waxee nag waxtu bu nekk mooy ñëpp a nga ci nga ci ñoom ay gor lañu ay julli lañu wax naa ne ay nit yàlla itam a ngi ci waaye sëñ Touba day koo xam ne ku ko xam loo mën a am dootoo ko xool loolu moo tax ñu ñëw ànd kenn xàmmewu ci kenn lañ leen fa bàyyi it mooy liggéey am jom nekk ci la leen lañ war a nekk wane fa lislaam wante it wone fa sëñ Touba ba réewu Amérique moo gën a rëy ci réew yi ci àdduna ci niñ ko àdduna xalaate xëy na itam lépp nga fa waaye kenn yebu leen fa ci diine kenn yebu ma fay sëñ Touba it ci ñoom te loolu it defe naa ne mooy sa bëgg-bëgg doo bëgg mukk ñu yabe diine ci kenn wala ñu yabe sëñ Touba ci kenn ñooñu loolu lañ fa amee ndax réew la moo xam ne ku ko xam xam ne duñ négliger dara ku fa nekk boo leen yëgee boo leen gisee boo leen gisul loo fa naa ne loo nekk la ci nit mën a xam ña ko ci xam loolu tax na ba ñoom tamit la ñuy xam ci nit ak la ñuy xool ci nit mooy jikko ak doxin ba tax na sëñ Tuubaa am na fa loo xam ne ndax ay nit ma ko fa nekkal am nañ fa loo xam ne bu dul woon woowu doxin xëy na du demee noonu ndax jullit yaa fa nit ku nekk nga fa waaye sëñ Touba ña ko fa nekkal wane nañ ko fa te wane mooy jikko ju rafet ak doxin bu rafet kon loolu yow lañ koy wax ndax yaay sëñ Touba euh, tax na itam sëñ daal ni ñu koy waxee rek ba fa nekkoon di seen waajur lam fa nekkaloon mooy seen maam dafa nekkaloon te sëñ tubaa seen maam it yàlla ak yonent bi rek la doon liggéeyal mës sa liggéeyal bopp mës sa xalaat boppam ci dara sëriñ bi it ba mu fa nekkee ba mu fa demee loolu rek la leen doon won na ñoom it ñu am jom jooju am ngor googu am ngëm googu am pas-pas boobu moo tax réew ma yi tamit am na lu bari lu ñu leen muñal am na lu bari lu ñu leen nangul loo xam ne nangul luñ ko ñeneen xew-xew yi nga xam ne àdduna bépp da cee jaxasoo woon ci wàllu lislaam li muy jafe-jafe jafe-jafe ñoom rek lañ fa mayoon ci bis bu rek ya ca tege ñu nekk ci seen julli jumaay ajuma di ko fa julli waaye ñu bari nangootuñu woon a sax feeñ ci wàllu lislaam loolu nag sëñ Tuubaa rek la sëñ bi tamit loolu moo taxoon mu diggal leen ni leen nañu ànd nekk benn wut fa barab barab yooyu tamit barabu lislaam la ko tudd woon ndax sëñ Tuubaa dafa ëmb lu ne moo tax ndax lam ci jublu woon mooy ku fa ñëw ak yoon woo mën a bokk te loolu nga bëgg ak foo mën a bokk tey ab jullit boo ñëwee man faa wàcc toog fa la nga fay toog ba xam fa nga jëm buñ la mënee dimbale ñu dimbale la loola yi tamit tax na mu ñu tudd woon ko kërul islaam kërul islaam gi it moom la ci këyit yi nag ndax dëkki tubaab yi dañ dul nangu nga def tur nit koo xam ne dundul ci kër moo tax la ëpp ci loola dañ koy wutal lenn loo xam ne day nekk euh, jamia maanaam mbooloo wala ñu sos loo xam ne ñoom ci ay kayit day nekk ci lañu mën def turu kër loolu it moo taxoon sëñ Murtada mës sa wax fenn ne dañ ko def ci këram ci turam te itam lépp lu ñu fa doon def moo fa njëkk yóbbu ay juróom fukki junni dollar ci yooyu jamono mën na ñaar fukki at lu topp ñu tàmbalee ci kër gi taaliba yi itam di ay jàmbaar noonu ñu ko waxee rek jël seen lépp jox ko su jox ko sëñ Tuubaa loolee nag ñun moom ngeen nu sas nu di leen ko seede li ma waxee woon rek dama wax ne faloo ñu wante danga ñëw sas te yaakaar naa ne ku am xel te nga jox ko ndigal war naa xam ne aw sas la aw sas nag nit bu ko bayagul defe naa waragut a bàkku walla mu jë jéem a kañ kon nag nag ñu ñaanal ñu itam ba bañ caa rax dara ndax nag léeg-léeg rax day am te rax boo ko defee ci yëfi jàmbur bu ko yëgee bu ko seppee mën naa am ko ko gisoon defe na ca la te bokk ci bu boobaa dana jaa dana jaaxle ci kaw noo koy leerale loolu nag nag ñu ñaanal ba loolu mu mu mu bañ noo dal la ca des it mooy ñu ànd booloo ndax loolu mu waxoon tax na ñu am fa lu ñu fa defoon muy association bu ñu tuddee Mika lëñ ci jublu woon mooy ni ma ko waxee réew yooyu nanguwuñu nga def tur nit wala lenn ci lu dul mbooloo moo xam ne dañ koy nangu loolee nag ci lañ def yu bare ñu bëgg ñu di la ñaan nag di la yëgal ni tamit nun tamit waxuñu leen def leen nu lii waxuñu leen woonu taxaw taxawuñ ci seen kaw di leen su suge wala ñu di leen won wenn melo lu dul ak taalibe gi nga xam ne moom ngeen nu moom moom la ñuy roye ci yéen waaye nag saa bu ñu gisee lépp loo xam ne dafay dafay nar a jaxase wala muy nar a yàq fokk ñu yëgal la ko ñun nag amuñu baatin yàlla def na sax soxlawuñ ko ndax buñ ko amoon mën naa am dana mujj doon doyee sax ndax fekk ñu ko waaye yéen ñi ko am na ngeen leen ñaanal ba seytaane bañ a génn ci seen biir ndax lañ fay sos sos dafa am ñu koy def te defe naa ne mbir mi sof rek la war a doon mooy. fekk lu baax nga teg ca la ca des kon nag loolu ñu sos nekkoon fa nga xam ne ci la lépp aju sëriñ bi dañuy ñaan nga bàyyi nga nga ñu ñu ñu li ñu leen digal li nga xam ne ñoo ngi leen koy laabiré ci seen ndigal muy ñu bàyyi fa lenn te daayira bu nekk fenn fa nga nekk fa nga nekk fu nekk nga fexe ba yow ña nga nekkal ngeen di diisoo lu ngeen bëgg ngeen ànd ko bis bu mel nii bu dajee ngeen di ñëw ci sëriñ Tuubaa ndax loolu leen ko sëriñ Murtalaa waxoon daf ne woon lim leen diggal mooy ku fi nekkal sëñ Touba di leen daje di ko yóbbul seen addiya kër ya tamit mooy ku fa ñëw di jàng sa diine nga jox nga nga ngeen yaatal ko fa loolu moo taxoon mu jël barab yi ñuy bëgg nag kon la nga xam ne mooy ay sosu nga xam ne day dem ba jaxase day dem ba ñenn ñi sax bëgg caa jaare muy loo xam ne te seytaane dafa bari doole te mbàkke te sëñ bi xam nañ ne yoonu murit diine sax li ko la li ko li koy may doole mooy ànd nekk benn saa boo gisee ku koy taxale xamal ne am na lu ca rax loolee tax moo tax ñu bëgg daayare bu nekk fam nekk mu nekk fa ak ña mu dëppool xamanteeg ñoom bu ko defee bu dajee jotee ca lañu war a daje ñu daje ca bu dul lool nag di sos yoo xam ne day indi jaxase ak di indi xuloo loolu lu koy indi lu nekk bu yàggee dafa yàq kon loolu moo taxoon ñu di la yëgal ne loolu xalaat la boo xam ne dañ ko bëgg wax ci sa kanam te xam ne ñun lépp lu ñu lu ñu def xam nañu bu baax ne ngeen ko xam te suñu xol ak suñu xel ak suñu suñu suñu jikko mayuñu muy def dara loo xam ne bu ngeen ko déggee mu mu wér te te mu te noonu fa suñu yéene nag duñ ko def wa maa ubarri'u nafsi nag la alxuraan wax inna nafsa la amaaratun bi suu wante mënta yàgg ba nu dugg ci loo xam ne wala ñu def loo xam ne ak yàq rek moo koy waral waaye nag na nga leen ñaanal ndax sonn nañu sonn gi mooy sonnuñu sax ci wàllu alal ndax soxlawuñ ko la leen ko yóbbu du alal gis ni ñu doxee waaye nag boo dee gor di jullit bëgg lu baax bëgg lenn nga xam ne lu metti metti metti metti loola ca ngay nekk ndax bare tubaab yi waxewoon nañ ko mooy neexatul ndax seen bare dañuy wax ne dañu nekk ci crise te crise yooyu xëy na sax seen mbir la waaye ñii euh, ñay tuddee seen bopp crise bu ñu amoon junni ñoom amuñu sax benn te boolewuñu bopp seen crise bi ñoom seen crise li muy li koy jàppee mooy fexe ba seen pas-pas ak seen xel bañ a dalati te léeg-léeg mu mel ne loolu dafay ba dafay faral di am ndax léeg-léeg ñu ànd nekk benn nga wax li keneen jaafa wax la ca des te bu yàggee seen xel day fi jax-jaxi ba du ànd googu duutu mën a am te loolu du sa bëgg-bëgg kon mbaa loolu mooy sëriñ bi moo tax ñu di la ñaan nga ñaanal leen nga ñaanal leen ndax lu réew ma naqari naqari ak lu ñu leen xool xool bët yéen ñëpp bokkut la yéen leen daan xool ci yërëm ci yërëm ci yërëm leen amatul léegi nañ leen daan mu ñëlee mu leen ko ndax dañuy defe ne lu ñàkk ñoom ñi ñoo leen ko xëy ñoom i tamit lay dal seen xel kese mooy lu ñu liggéey liggéey ak lu ñu sonn sonn sonn sëñ tubaat duñ ko fàtte waxtu bu ne bu dee guddi bu dee bëccëg suñu liggéeyee ba wàcc suñu amee suñu amul fokk ñu daje fàttali ko fa sëñ loolu foofu loolu lañ fa nekk kon nag lay tax loola di jafe léeg-léeg mooy la leen di yëngal di di jax-jaxee seen xel ba ku ne jàpp ne fu ne dara nga te loolu mënta nekk dara moom lu baax fenn rek lay mën nekk kon nag sëñ bi ñu ngi lay ñu ngi la koy ñu ngi la koy ñu ngi la koy ñu ngi la ñu ngi lay seedeel loolu ne lii lañ xam ci ñoom muy nga ñaanal leen seen xel daal nga ñaanal leen nit ba nga xam ne ñiy jóg di yàq foofu it léeg-léeg mu am jafe-jafe nga baal ma nag guddaay bi waaye nag dañ leen di seede te ñun nga yebal ci ñoom la ca des it liggéeyal nañ fa sëñ tubaa ba yebuñu ko fa waaye nag léeg-léeg it nga gis fu sëñ tubaa daan jànge alxuraan wala mu daan fa tagge yonent bi nga gis ko fa ñëw dafa tëgg ko fecc xëy na mbàkke loolu xëy na loolu yow doo ci mën a ci baatin nga ci ne ndax yàgg na diine yàgg naa am ñu ko jaxase waaye nag ñoom itam ñu am xelum nag ak fulla yi lépp luñ gis te bokkut ak la sëñ Tuubaa ñu di ca ñu ñu di ko bàyyi xel loolu it nga ñu wax la ko ci sa kanam ba nga xam ne am na ñoo xam ne fu sëñ Tuubaa doon defar ci lislaam jaar nañ fa ngir bu ko yàq te loolu it ñoom ñii dañ ciy daal di nekk ab coono ci ñoom ndax ku leen woon sëñ tubaa ñu ne moom la te fekk leneen nekk ci biir loolu moo taxoon la ñu daan tudde baati ay jàngkat am na sax ñu dem ba ne Maamoor day tere ay xasaayit def naa ne loolu ñemewu ko wante dafa am rax ña nga xam ne dañoo dajaloo te boo àndeek ñoom dootoo duñ nangu nga amati sa sëriñ duñ nangu nga àndate ak sa waajur duñ nangu nga jaxasoo kenn lu dul ñoom te la ñuy def doo ca xam dara ñooñu la ñuy waxal kon loolu itam ñu xamal sëñ bi ne loolu mooy li nga xam ne ñoom lu ñu gis nag te muy yàq te loo xam ne dafay dafay jaxase fokk suñu làmmiñ buñ ci mënul bàcc nit suñu làmmiñ moom dana ko wax lu ñu ci fekkit nga xam ne seen liggéey rek la ñuy liggéey kon loolu rek moom lañ doon wax ñu di la ñaanal te jéglu ci kàddu yi ndax gudd na te xëy na toogaay bi moo tax sax ñu ne nañ jël kàddu rek waaye ñoom ñi mag ñaa ngi fi mag ñi itam ñu ñaanal leen te gone yi tamit ñu ñaan la nga ñaanal leen ñu topp ci mag ñi ndax gone mënta xëy rek egsi nee na mag dem gone na man ma taxaw te fekk jaarul tànki mag ya loolu it nga ñaanal leen ba seytaane yi dugg ci yooyu ba di leen dugal xeli ndaw yi ci loolu loolu dañ mag ñi it bañ a mer bañ a bañ a bañ a gedd ndax loolu tamit léeg-léeg mu metti loolu loolu nag ñun sa moo tax ñu di la ñu di la ñaanal di la xamal ne ndaw lañu daal lépp lu ñu gis daal te mu yàq danañ la ko wax lépp ñu wax mukkit loo xam ne boo ko xoolee ba ci biir bu am ñu xam ne tamit ndigal benn baat lay doon muy moom mooy sëñ Touba te feeg saa buñ duggee nag ci mu jaxasoo bu ne dara di fa jógee bu yàggee yoon bi ci boppam dana néew doole te loolu mbàkk xëy na euh, defuñu la ko sax waaye nit dana niru na yaa doon si kon nag yàlla na yàlla euh, may fan gudd da nga wax ndax loolu rek moo tax ñuy wax wax ju bari ji ndax dañ te fokk buñu taxawee ci sa kanam ñu wax li ñu xam lépp jërëjëf ginnaaw kàddu yooyu sëriñ Mamor euh, yëkkati ci kanamu Cheikh Sidi Mokhtar bi mu noppee itam Cheikh Sidi Mokhtar tontu na euh, ay kàddu jëmale ko ci ñoom mbooloo mi jaare ko ci sëriñ Mamor kon ci biir kàddu yi sëriñ bi rafetlu na seen liggéey see nangu ne seeral na leen ko waaye nangul na leen ko ki doon yëkkati kàddu yooyu ci turam mooy euh, sëriñ Cheikh Thioro ñu teewlu ko. asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. yow sëriñ Mamor Mbacke. Cheikh Sidi Makhtar Mbacke xalif général de Mouride mi ngi lay nuyu yaa suñu mbokki taalibe yi nga àndal te muy fédération bi boole mboolem taalibe Cheikhul Khadim bi nekk ci Amérique mu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam mu ngi leen di siyaar bu baax itam tey sàkku ngeen nangul ko siyaar bi mi ngi leen di nangul siyaar bi di leen nangul liggéey bi di leen nangul addiye ji di leen jàppal itam ak seenu taalibe di leen ko sàmmal di leen sant bu baax ci booloo gi ngeen booloo nekk benn te lépp liggéey sëriñ bi rekk tax ko jóg gannaaw bu ngeen tënkoo ci ay ndigalam teg seen tànk ci yoonu siraatul mustaqim te loolee mooy li ko ci ëppal solo kon mi leen ci sant di leen gërëm di leen ñaanal ni ko sëriñ Maam Mor waxee léegi lim seere ci yéen rek doy na waaye sëriñ Mor sëriñ bi di la yóbbantewaat ay cant ak i ngërëm ci mbooleem ña fa des ñëpp tey sàkku ci yow nga jotal leen ni leen liggéey bi agsi na ci sëriñ bi te nangul na leen ko te incha allahu dina leen ko defal ci liggéeyu sëriñ bi mu lay sant yow nag sa cantuk bopp ndax li nga wax rekk moo fi nekk dara lu ñu sos amu fi. lu ñu sof rek moo fi nekk ndax wax nañ la fi démb ni ku tedd ki njabootam gi kenn ku nekk dafa am foo ko féete woon di ko jàppale ci liggéeyam bi mbaa foo féete woon ci liggéey bi cheikh Mouhamadul Mourtada nag radiyallahu taala anhu yàlla dogaloon ab liggéeyam ci lislaam ci kër Serigne Touba muy di dox di dem ci réewi tubaab yi di fekki taalibe yi Serigne yi di fekk ña nga xam ni mën na leen dugal ci lislaam liggéey ci liggéey bu yaatu boo xam ne tey fépp nooy na kon sëriñ bi di delloo lépp ci moom di ñaan suñu boroom fay loolu lépp mu fay ko ko waaye bi fi Cheikh Mouhamadul Mourtada bàyyi ko itam sëriñ Saaliwu yeesal loole ci yow nga cay dox di ko yaatal ba Cheikh Mouhamadul Lamine Bara ñëw loolee itam mu fettali ko ci yow nga koy dox di ko yaatal ay daayira yi ñëw fii bis bu nekk waaye bi Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké ñëwee woote benn la gi nga xam ni moom la woote te jëkke ko ci njaboot gi nga xam ni mooy njabootu sëñ bi te fekkoon nañu nekk benn ba noppi wax ni taalibe itam dama bëgg dëkk boo xam ni réew moo xam ni ay taalibe nga fa ñu boole seen bopp suñuy ñëw ci man àndandoo teew ci sama bopp ma gisandoo leen ñoom ñëpp loolee mu sas sant la ko sas la ko te nga bay ko dox ci ba réew yépp tey réew moo dem fédération la di àndandoo di ñëw ci kanam sëriñ bi di fa teew kon loolee su amee sa taxawaay bu rafet la ak sag langante ak taalibe yi kon sëñ bi di la sant bu baax a baax di la gërëm ca loole di sant taalibe yi itam nga xam ni saa soo jógee ba ñëm ci ñoom xam nañ ni ci ndigalu sëriñ bi nga ñëwee xam nañ ni baatu sëriñ bi nga ñëwee moom itam sëñ bi di leen sant bu baax ci gàttandu gu ngeen ko gàttandu ak xam ni lu mu indi ci ndigali sëriñ bi la kon mi leen sant bu baax a baax di leen gërëm ca loole di yóbbantewaat ay cant itam sëriñ Mor ndax ku xam Amérique xam ni réew mi gën a mag ci àddina ci la bokk. te jàpp naa ne booy xool islaam cër ba fa islaam am amu ko ci benn réew waaye cër boobee ci njabootuk sëriñ Touba la ko suñu borom jaarale nga xam ne mooy muridul murid ya fa nekk cër ba nga xam ne américain yi may nañ leen ko amul benn di benn tarixa buñ ko may wala benn diine buñ ko may burul murid lañ ko may te mooy lislaam kon nag sëriñ bi yóbbandoon ay cant ak ngërëm ci yaatal googu nga xam ne américain yi yaatal nañ ko njabootuk Serigne Touba gi bañ man faa def loolee yéen itam seen bopp sëriñ bi rek di gën a wax ñu gën a fetliwaat suñu laxasaay gën a tënku ci ndigal sëriñ bi te xam ni ku tedd ki dafa liggéey suñu borom ba suñ borom fay ko lépp lu baax amu ci dara lu ñuy liggéeykat yi lépp yàlla jox na ko sëriñ bi kon nañ leen sax ci ndigal yi te moytu tere yi te lépp mi ngi ci biir loole mbi wax ñu gën a góorgóorluwaat bu baax gën a fetlewaat laxasaay yi te gën a fonk daayira yi ni ko sëñ Mor waxee sàng ndax bu jëkkoon kët mag ñi dañoo nekkoon ci àll bi boobu tukki xewul waaye dañ daan bay ay tooli àllarba di ko dajale di ko yóbbul ko tedd gi ci njaareem mu leen koy defal ci liggéey bi lislaam bi tey nag ñu bari ñu ci àll bi kon lii nga xam ni mooy kër yi ñu sos muy këri lislaam te Cheikh Mouhamadou Mourtala sosoon ko ngeen fay ànd di fa daje di fa waxtaane ak taalibe di fa jàngal seen lislaam di fa gindikoo di fa dajale seen alal di ko indil Serigne Touba sëriñ baa ngi leen soññ bu baax a baax ci loolu tey fedd li mu waxoon fii daaw rek ni Cheikh Mouhamadou Mourtala mi Cheikh Serigne Mame Mor mi ngi noonu saa su ngeen ko gisee ni ngeen xam ne ci turam la fi ñëwee ci baatam ñu fi ñëwee lépp lu mu leen wax itam moo leen ko wax lépp loo xam ne itam soxla ngeen ko su leen ko waxee bu ñëwee dina ko ko jotali lépp lu mu soxla ci yéen dina ko wax mu ñëw wax leen kon mi leen sant mi leen di gërëm jërë ngeen jëf sëriñ bi nee na naa leen leeral ni sëriñ Mamor lantinoor la bu du ak diw lépp lu jaar lu ngeen jaar la ci moom agsi na ci moom jërë ngeen jëf. ginnaaw kàddu yi sëriñ bi sax loolu di lu am solo sëriñ bi bi mu tàllalee ba ñaan itam dafa laajaat kàddu gi mu mel na mbir mi ko doon mi mu doon waxaat mbir mu ko ñor la lool ci la waxaatee ne sëriñ Mamor de lantinoor la du tee ak diw. lii rek mooy jataay bi nga xam ne mbokki taalibe yi féete foofee ci États-Unis amal nañ ko ak Serigne Cheikh Sidi moxtaar yàlla na fi yàgg te ci eh, njiitum Serigne Mamor Mbacke nga xam ne tam xëy na Serigne Touba liggéeyam yaatu na ba daj mboolem goxe àddina yi waaye particularité bi nga xam ne États-Unis am na ko xam nañ ni buñ dee xool kàttanug zahir ci ñoom la yem waaye tam. Euh, nim nekk gi mu nekk réew mu mag ñu bari yu ñuy bàyyi xel euh, tax na ba yu ci baree bari ci ñoo xam ne dañuy wane ne dañuy jëmmal diine lislaam am nañ fa ay jafe-jafe waaye foofu itam euh, sëriñ bi jaar ko ci cheikh Mouhamadul Mourtada Mbacke sëriñ Mamor bi mu ñëwee itam mu yokk loolu gën ko fésal tax na ba Euh, jafe-jafe yi amoon ci 11 septembre ak i jamono itam euh, ba ñu tëj jàkka yu baree bari teewul kër Serigne Touba yooyu di këri lislaam ak jàkka ya fa nekk mbooleem jullit ya fa ne fa la ñu doon matale seeni julli kon ni ñu ko waxee woon rek Serigne bi. kon foofu wane na faasu lislaam dëgg-dëgg bi nga xam ne mooy jëmmal doon gi mu doon euh, diine jàmm waaye diine humanité kon lii moo doon ngan googu ñu leen doon indil seen télévision Touba Média di leen dig daje beneen yoon wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu amiin